asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi lu yéemeeti moo amati fële ca ñàgg Tiwaawoon Pël ci kër euh, Serigne Pathé Diop bu Serigne kër si mooy magasin bi nga xamante ni fi la bagage yi nekkoon moo tàkk ba jeex takk waaye mbokk yi li ci gën a yéeme mooy foto Cheikh Seydi Aboubacar Sy boobu nga xamante ni moo nekkoon ci biir magasin ba tàkk lakkalal ya lakk coiffeuse ya lakk yépp waaye xoolal photo Cheikh Seydi Aboubacar si boobu rek moo ci lakkul ak wasilaam boobu ak photom bi moom gis nga li nga xamante ni mooy toile bi tafe woon ci kaw photo bi sax dafa lakk gis nga ko noonu waaye photo Serigne Babacar Sy bi daan dara lakku ci photo Serigne Pathé bi dara lakku ci ak photo bi nga xamante ni mooy wasila Serigne Pathé bi dara lakku ci mbokk yi muy lu yéeme loo xamante ni léegi la xew fële ca ñàgg Tivaouane Pël mbokk yi nag ñu leen di xamal leen daal mayu Cheikh Seydi Aboubacar si ëpp na lii tabaarakallaahu lii nag loo xamante ni léegi la xew fële ca ñàgg euh, Tiwaawan euh, ci kër sëriñ Paate tabaarakallaahu bu sëriñ Babacar si lu yéeme jërëjëfe Seydi Aboubacar si jërëjëfe Seydi Aboubacar si Serigne Paate mii nga xamante nag lii moo xew këram euh, moom laa leen fi waxoon benn bis keroog ba ma demee ngénte ni leen ñeenteelu doomam bu mu tudde sëriñ Babacar si lay ngénte am na ñeenti doom yu góor ñeenti doom yu góor yëpp Serigne Babacar Sy la leen tuddee gis ngeen foto bi mu ngi noonu tabaarakallaahu kër gi lakk na ba jeex takk néeg bi waaye foto boobu daal moo ci lakkul jërëjëfe Seydi Aboubacar Sy tabaarakallaahu lii day firndil ni rek sunu góor gi kenn du moom sunu góor gi kenn du moom waaye sëriñ Paate sa cofil ci Serigne Babacar Sy nag lii moo ko dëggal tabaarakallaa ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan ci barke sëriñ Babacar Sy yàlla na nu yàlla boole ci njabootu Seydi Aboubacar Sy yàlla nañu yàlla boole ci njabootu Serigne Babacar Sy yàlla nañu yàlla boole ci njabootu Serigne Babacar Sy Serigne Paate nag li tax nga dàkkantale sa bopp Serigne Paate bu Serigne Babacar Sy yàlla na ko yàlla fay ci barke yonent bi lii nag yàlla na fi gëj yàlla bu mu amati ci barke alxuraan mbokk yi loolu lañ leen wan fii tey fi nga xamante ni mooy moo xew fii ci ñàgg Tiwaawoon Pël mbokk yi gis ngeen ko tabaarakallaahu loolu la yàlla waneeti ci borom bonekaari bi Seydi Aboubacar Sy jërëjëf Paate mu Serigne Babacar Sy